ab murit bu taxawee ci kanamu sëriñam li ko war mooy jëf ndax sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu baax bi daan wax ni jëf moo yóbbaale wax waaye wax du yóbbaale jëf kon nag ñun murit jëf rek lan war a def tey nekk seexul xaddim ci boppam dafa am lu am solo loo xam ne waxoon na ko la seex Mouhamadou Moustapha doon wax ni li ma sëriñ bi wax ma teg ci sama bët la ma wax te teguma ci sama bët loolu la mooy gën li gën a wér ci man te ñoom day njabootu sëriñ Tuubaa gi seeni wax alxuraan la alxuraan nag lu nuy lu nuy lu nuy lu nuy firi la ak ku ne sa kemtalaakat na nga ko firee te nag ñoo ngi jéggulu mbooloo mi teyit la sëriñ Tuubaa waxoon ni yéen de mag ñi saxaaba yi ñooy seen bàyyi si diini te bàyyi moom nawle rek la ndax bàyyi du moroom waaye nawle la mag ñoo ñi ma ko waxoon wóor na leen sëriñ Tuubaa waxoon loolu lépp def nan ko ndax xam na ni saaba yi wér na ni seeni nawale rek la te jëfandikoon ko li sëriñ Abdoulaye waxoon ni sëriñ Touba di moom amul doom amul rak amul dara ab taalibe lam ku nekk doon sama loolu sëriñ Touba firndeel na ko si ñun ñii ndaxit sama kàddu it ñi ma seqal liggéey bi samay baay lan ak samay mag ak samay moroom soññee bi nag jëmalewu ko si may kilifa ndax dañ fi àndoon ne ko samay waajur di def lan war a def lépp ba si fii ñooñu kon. waruma di leen soññ ñi may soññee mooy suñu mbokki ndaw ndaw yii teyit nag dafa am loo xam ni nit amul lu dul kàddoom teyit doomu aadama bu nekk ndam rek la war a bëgg ndax boo xoolee nit yi àdduna yëpp tey ñiy xëccooy président danoo am alal ju bari ju bareel bari alal jooju xooluñu ko waaye ndam lan xool sut ndam loo xam ne nag war nga koo amee fa ko war amee muy jëmee ko Serigne Touba te liggéey bii ku ci nekk xam ne li Serigne Touba doon firndeel ndax ñun commerçant yi di yaxantu ci dëkk bi li ñu war a xam mooy Serigne Touba teral nañu ndax lii mu ñu jox tey suñ jataay bii ñun commerçant yii leen fi dajale ci ay oto seti Serigne Touba yii dajale ko te Serigne Touba moo ne ko foofu jox leen ko kon nag bu ko Serigne Touba yëkkatee teg ñu ko suñ loxo war na noo te nag lii ñuy def war nañ cee gën a góor góorgóorlu te am te te te te taxaw ci taxaw baax te xam ne liggéey Serigne Touba bii buñ sëriñ Touba jaglelee ñu séddañu si ñu war cee ñu war a ñu war a liggéey. Serigne tubaa su ko neexoon tey nam defoon ca bato ba nga xam ne bi ko tubaab bi bundu xataa dafa wàcc fab der bi teg teg ci teg ci julli Serigne Mountakha tey bu ko neexoon tey ñun lii ndax liggéey bi xam la kulli xel day am su ko neexoon Serigne bi ca boppam mën naa def loo xamante ni bii tey day indi mën naa xëy ni jamaa na jamaa ñëw jama jamaa daal di ñëw si si si si bi waaye nag mbirum saahir la te ñun suñu bopp nan seera nan xoolaa suñu bopp baax te xam ni leen sëñ Tuubaa defal lii ñu sëñ tubaa defaat nañ ko wa delloo ndax sëriñ tubaa lañ yaakaar tey sëriñ tubaa lañ yaakaar ëllëg te wóor na ni bàmmeel moo gën a xat moo gën a difficile moo gën a am jafe-jafe yow mal xiyaam te wóor na ni sëriñ tubaa lañ fa yaakaar te wóor na ni si yaakaar ñu yaakaar sëriñ tubaa tas mukk ci àdduna kon nag ñun commerçant yi la sëriñ mun taxaw waxoon buñ buñ buñ buñ ko décevoir ñoo taxaw fii ni ko dañuy liggéey bii jox ko sëriñ mun taxaa ànd ceeg te ku ci nekk wóor na ni am nga ko ndax ñëpp ku ci nekk tey suñu waxantee dëgg suñ biir tey jii buñ fi doon jaay ab koñ si deux cent millions trois cent millions da nga koy jënd te loolu jàpp na ni liggéeyal Serigne Touba bii moo gën a gaw tey si saa yi rek ñun waa Touba ñii ñoo si ëpp ñoo si ëpp ñoo si ëpp njariñ ndax liggéey bi bu su suñuy doom ñoo si jàng suñu njaboot ñoo siy xamlu te jamono demee noo xam ni ku la dimbale ba sa njaboot bu du yàqu loola war koo sant bu baax suñ alal jii moomuñu ko Serigne Touba ko moom. tey nan ko mañ mañalam suñu làmmiñ nan ko nan ko nan ko jëfe te sëriñ tubaa tax nan liggéey sëñ tubaa tey boo xoolee suñu mag ñi fi jiitu woon daanaka am na lu leen daa lu leen la bi ndax daan wax ni commerçant yi tubaa duñ def dara lu ñu waxi kese ginnaa ñu ne engagé wu nan ci lii nan góor góorlu ba lii buñ rusloo sëriñ tubaa ndax kat day am kat buñ yaafu si yëpp sëriñ tubaa day day am day am waaw lam waxoon si jumaa ji ni li buñ ko liggéey ñeen daan wàcc ju def ko liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne Serigne Touba moo ko digal Serigne Mountakha tey mu bokk si liggéeyu Serigne Touba yi loolu wax dëgg yàllam ku ci am sansu Serigne Touba boole ci war nga am dam war war ngaa gën a góorgóorlu war a xoolaat sa bopp baax ndax li ñuy wax ci économiquement loolu buñ tubaab yi nax amul xaalis bi wàññikuwul Serigne Abdoulaye daan wax ni xool yu no mbay mu nangu xool xool yu nangoo ko gën li ñuy wax yëpp du dara alal jaa ngi fi nan ko ci def yii ay gàllankoor yoo xam tubaab bi dañuy na leen lànk feebar naam dëgg la waaye nag bu mu ñu gàllankoor am murid dara waru gàllankoor